président de la République pour initiative bi mu jël pour jëmmal bisu mel nii ci réew mi naam cet moom euh, yittey askan wi la chaque jour waaye taxawal ba mel nii dafay fàttali saa su ne askan wi responsabilité individuelle ak responsabilité collective ci wàllu cet loolu nag dañ ko sant bu baax a baax di la remercier monsieur le préfet di la féliciter pour avoir très tôt mis en œuvre cette volonté exprimée par le président de la République di sant population Mbacké yëpp seen mobilisation di wax ne que Sénégal dañoo ñor waaye dëkk Mbacké set moo ñu gën a ñor ndax it fi la dëkk ku nekk it nga dëkk dañoo war a ëllëg bu prix di am prix ñun waa Mbacké ñu jël prix la de la ville la plus propre du Sénégal loolu mooy enge bi set nag dafa bokk ci lu ñuy wax déterminant de la santé boo bëggee wér wérle foog nga set setal loolu nag ku ne si ñun da cee war a bay euh, da cee war a taxaw def ci li ci war xar ci tànk tubayam ba dëkk bi set kër yi set askan wi yëpp ne si jàmm maa leen di gëm di leen sant wa salaam. li ma jàngate bis bi mooy. ni population bi répondre nañ président de la république parce que population bi yëpp génn ki moom mën nañu wax ni ma Samba la wala ma Demba la population bi moo adhéré à la politique de son excellence le président de la république parce que président deful leen lu dul woo leen ci ñu toppatoo seen bopp woo leen ci lu baax ci ñoom je crois que fii à Mbacké population bi comprendre ni kii seen jàmm la bëgg seen wér la bëgg ñoom ñëpp ñoo génn ba ci sëriñ si sax kenn desut donc maanaam action yu président yi cinq trois cinq yëpp loolu nii nii la demee yu ci bëree bëri boo toogee ba xalaat ko ba guddi da nga xam ni kii si bopp tax ñu def ko équité territoriale bi muy wax nii loolu moo gën a fort ci concept yi président génne nit ñi xamuñu sax nuy loolu ni loolu nit ku am xol bu yaatu rek nit ku xam sens de nit ku xam joxe ah kooku mooy xam loolu te président foofu la toll actuellement ni nee naa la à part yàlla moom la ñëpp di tàllal loxo te nangu na ko te mi ngi koy dox kon boobu ni ko nit ñi jàppale en tout cas fii à Mbacké seede yàlla ñu ngi koy tisool yi fii tey on avait tas d'immondices yi fi nekkoon yëpp dindi nañ ko mais ni ngi doon nettoyer mais du tey aussi danañ continuer di ko pérenniser loolu mooy problème bi nettoyage du rek mais da koy def chaque jour nit ñaa ngi koy def nit ñi nag si boppam vraiment maa ngi remercier bu baax préfet préfet def na action bu rafet Ballé d'or ñoo koy jël moom coupe bi moom Mbacké dana ko jël koy mooy fii population bi dañu adhéré ci politique président de la République population seen bopp leader yi dama wax ni leader tey amul y a une confusion waaw donc ba wa dire que donc li président di wax dugg na xolu nit ñi dégg nañ ko bu baax a baax a baax a baax a baax clean day bi clean every day lañ koy tudd sax ñun fi mu ne nii clean every day c' est pas clean day every month mais clean every day donc loolu lañ jël fi mu nekk nii bi ñuy waxtaan barki dem ak préfet pour choisir donc le xaase li si dañuy ni neen jaare kër yàllaay buur mu def ci ñaan te noonu la def doomam taawam la ñu booleel taawam moo nekkoon ak ñun ànd ak ñun ba bi bi ñuy pare doom doo taawam moo ànd ak ñun donc daal en tout cas daal lii ma jàpp ni pour que ma yaakaar ne ñu doon coupe bi population Touba population Mbacké ñoom ñëpp ñoo génn tey sancaane des kenn desut ñoo ñëw te da nga xalaat da nga xalaat li préfet wax appel ni championnat la da nga da nga xam da nga xam ñu def tey tey am nañ trois points lii lii pour lawee équipe yi des ñoonu la ñuy rawee dëkk yi des ñun c'est certain c'est certain donc danañ dem bu soobee yàlla encore ñu gi remercier ñëpp. en tant que membre de cabinet président poids rouge il m'a marqué franchement ci bisu tey bi parce que euh, ful bi ñu génnee te depuis bi ñu démarré ba tey ku ci ne bale bi nga yor wala rata bi nga yor échangé woo ko donc di wax ni réew dafa am yoon. boo xoolee poids rouge tey taxawaay bi mu taxaw ci côté Mbacké ci nawetaan ci lamb ci lépp poids rouge mi ngi fa tey président wootee bis bu toll nii. Croix-Rouge génn ànd ak préfet ak responsable yi gën cee marqué ay points gën cee fés donc vraiment ci turu président de la république daay jël engagement que ni Croix-Rouge les membres de cabinet bi ñu ngi leen di remercier bu baax a baax a baax a baax di wax ni rek lii booy réew parce que boo xoolee te niñ sol boo xoolee ku ci ne nu mu tëti sa comportement ci set ci yiw kon man damay remercier Croix-Rouge bu baax a baax te tam man maa la wax ni danaa dinaa nekk seen partenaire te danaa ci danaa ci jàpp lu ma mën di wax ni daal euh, journée tey bi sama xol sedd na ci li ko président lancé waaye nag sama xol sedd na tam ci mouvement yëpp génn nañ waaye croix rouge mention spéciale donc di wax ni rek euh, réew li moo koy def ndax président daal mooy président président tous les sénégalais moom moo génn yor rato yor peel yor bourbet toon ni bale parce que civilisation mi ngi njëkk ci euh, ci set tey da ngay xool la combat am ma seen ak Modou Lo euh, arbitre bi bu fekk continuer jaarul croix rouge mais la champion Eumeu Sène fa lay yem donc nit ñi il faut que ñu dellu ci euh, kii yooyu valeur yooyu mooy sa réew dafay am loo mën tey c'est sûr que ni sécurité bi waxuma sax bale bi mooy bu embalement doxoon fii ba mu yàgg mu daanu wala tàngoor yi jàpp ko mais croix rouge ci lépp danañ danañ danañ la taxawu kon réew mi par exemple di ci dox ci mars ci yàq jëru ko nañu jël comme exemple ci ay croix ak ñooñu ñoo xamante ni nii ay xale lañ ñenn ñi ay ay ay ay ay diplômé lañ ñi ci des ay service lañ jot ci liggéey yow mii di di journaliste boo xam te ne nii ñëpp la ràññee croix rouge nga bokk ndongo mais di wax croix rouge la bokk mbay kase croix la bokk kon croix rouge dafa nekk école boo xam ni école la boo xam ni dana sowe doomu aadama en même temps boo ci duggee dina am yeneen idée yoo yor parce que lii complexe du ko def complexe du yor bale yor rato di bale jël comme initiative président de la kon vraiment maa ngi am mbégte contentement bu mag di tam dellu si ci rek di remercier préfet man de yàlla rek tax may wax man c'est la première fois ma génn ñëw ànd ci affaire bu mel nii parce que préfet bi ci xam-xam ci wàll administration ma nangul naa ko ko parce que am na dimension bu mu waxee nit ñi am na xel am na xalaat te dina déglu bi ñu ñëwee tam ñoo ngi fi gis ànd nañoo ay la maire Abdou Mbacké Ndaw Amadou Fall da la DG Gallo Ba même les opposants même les populations ñoo xamante ni woote nañu sax Macky Sall parce que lii du affaire APR wala ay parti politique. chers concitoyens parce que comme ni ma waxee woon sànq ñun ñëpp ñi taxaw fii du ñu leneen lu dul ay citoyens action bi ñu doon def tout suite du leneen lu dul action citoyenne dama bugg nag avant may euh, remercier rappeler leen ne. dafa mel ni ñu nekk euh, ñu engagé championnat tey aujourd'hui mën naa jàpp ne on a remporté notre première victoire n'est-ce pas suñuy trois points jël nañ ko match nul nag waruñu ko am victoire rek dañu bugg comme ni Liverpool euh, rawee gars yi ñu rawee ko gars yi n'est-ce pas euh, di leen ñaan ngeen maintenir mobilisation bi j'ai été extrêmement émerveillé par la présence de la Croix-Rouge. dem naa ba ne musuma woon euh, imaginé ne Mbacké am na cette force de mobilisation des jeunes surtout Croix-Rouge di nga ko gis fu bëri mouvement Croix-Rouge mais présence féminine bi man moo ma si jaaxal parce que góor ñi ñoo si daan ëpp alors wax naa seen responsable yi ne lii il faut que ñu valoriser ko profité si liggéey ak ñoom bu baax pour dëkk bi bu ko defee ñoom li ñuy defal seen dëkk ñu mën a nekk seen euh, interlocuteur pour que état bi xam également lan la leen war a defal loolu c'est très important wone leen seen bopp du ma ne état bi na leen defal lii wala lee mais li gën pour nga mën a laaj say droit mooy defal sa devoir nga toog nga xool nit ki en ce moment foofu lay pertinent yi mais boo toogee defoo dara ngay laaj say droit rek keneen ki ne la ëppoo ma fi droit nañu demandoo rek li ma rek laay def donc il faut loolu ñu maintenir ko intact duñ ko yemale rek si clean day dinañ ko boole ak yeneen action à Croix-Rouge. Et ça, je vous le promets. Jeunesse de la Croix-Rouge. Voilà. très bien ñeneen ñi mooy ñi si bokk ñëpp ASP yi ASC yi je sais que mobilisation ASP war na mën a euh, euh, ASC n'est-ce pas association sportive yi war na mën a weesu lii je sais que dans les mois à venir dina weesu lii ak yeneen mouvement corporation yi nga xam ne ñoom ñëpp bokk nañ ci vraiment maa ngi leen di gërëm yéen ñëpp au nom de des élus nationaux yi ànd ak ñun du maire de la commune de Mbacké ah euh, waa euh, honorable Fall Amadou Fall mi ngi fi Angloma mi ngi fi Mor Ndiaye mi ngi fi DG Galoba mi ngi fi woon honorable Fatou Ndiaye mi ngi fi woon et cetera donc pour wane ne bu fekkee action citoyenne la ñëpp war nañ si mën a dugalandoo seen loxo ku nekk nga jouer sa partition c'est ça qu'on attend te yaakaar naa ne bu fekkee image bi euh, dem na ba egg au niveau de de l'État dinañ gën a xool Mbacké gën ko jàppale plus que li li nga xam ne moom la président prévoir di ko fi def présentement donc maa leen di gërëm si si loolu di leen encourager encore une fois di leen demander ngeen maintenir la cap fii ak boobu nag dinañ saytu on va une évaluation li ñu jot a def nii dinañ woowaat benn commité ñu xool évaluation yéen seen biir aussi def leen évaluation loo leen mën a def fii ak le le le premier samedi du mois de mars def leen ko loo leen mën a def si wàll wàllu ma def leen ko mais bu ñu waatee dinañ ciblé waat beneen endroit ñu defaat ba nga xam ne nee naa leen ñun dañu jox suñu horizon fii ak mois fii ak mois nan la Mbàkke war a mel si wàllu propriété